xaalis bi léegi yow euh, bi nga génnee nga nga nga doog a gis ne jël nañ ci yooyu naka la demee. bon déjà avant loolu noonu tribunal bi muy jugé ba pare. Mhm. bi juge bi ne relaxé nañu. dañ lay duggaat si violon bi yóbbu la rëbës bi ñu duggee si violon bi policier bi ñëw na si tribunal bi doon am keneen ku muy defee rek ñu tase fa. Mhm. tase nañ si policier si si si violon bi si suuf tribunal bi. Mhm. bi ma laajee daf ma laaj. dama ko gis rek ma woo ko mu mu gis mu ma kooku ma ko la Ibou xam nga. ne ma mhm. yee ñaata temps lañ la tëj ma ne ko 6 mois. ma mhm. ne ko tëj nañ ma 6 mois juste pour bluffé ko ren mu ne ma ah 6 mois bëriwul. Mhm. loolu léegi mu jeex reetaan ma aju ma reetaan ma ne ko waa 6 mois la boobu juste pour bluffé ko mu dem ma dem. jeudi vendredi ma génn dem uti jaay certificat médical toppatoo sama bopp parce que xam nga fee prison moom déjà wat bi fàtte naa wax wat bi loolu amul benn hygiène dañ lay wat wat ndel benn tondeuse mooy wat ñëpp. mais wat ñëpp. amul hygiène ku nekk deux cent personnes mu nekk cent personnes ñi ngi duggandoo ñëpp benn a tuuti. feebar di nga wàll sida nga ba ngeen baal ku sa morom. VIH koy wàll sa morom parce que soo gaañee nit ki bi da ngay gaañ keneen da ngay koy takkal hmm. xam nañ li si. léegi wat euh, am na forcé ou pas. non la tu es obligé nga. waaw déedéet ma ne ndax am na fo comme di la wat naan la defal nii sa bopp bi defal nii yooyu. non comme détenu ñoo lay wat. du ay gaañ ah, détenu yi ñoo lay wat te ñoo lay war dañ lay da ngay summeeku ñu wat la dindi sa sikkim bi dindi sa mhm. karaw bi te wat bi amul tolloo amul daal dañuy wat rek dindi rek mu neex leen rek ñu ne demal mhm. amul wat bi tolloo na amul ndel amul dañuy dindi rek mu neex leen rek ñu ne demal dara du tolloo d'accord gannaaw ba nga demee seeti sa mhm. santé ak yooyu après mu ut samay papier noppalu jël samay garab ñu dem si dermatologue bi lijjanti sama boobu ba pare ba mu normal mu dellu ma lijjanti commencé lijjanti procédure ak euh, policier bi ak téléphone bi waaw léegi boobu suñu waa kër sax xamuñu ko woon ah waxuma leen ko après si laa leen ko waxee ne ko vérifier leen sama ma ne leen sama téléphone dañ ko sama xaalis dañ kaa sàcc. Mhm. bi ma génne ma ne leen téléphone dañ kaa sàcc mu ne ma kam moo ko sàcc ma ne mhm. nag pour dem si procureur. pour dem wax ji ko. bi ñu woowee nag ma xëyee lendemain woote am kenn ku woo sama benn grand. Mhm. boo xamante xam nañ ko mu woote. woo policier yi ne leen fay leen xaalis bi boo leen oytuwul sinon waa ji dina leen yóbbu si procureur. Mm-hmm. ñu waroon ñëw. woote police. Euh, policier bi policier bi si boppam. policier bi la woo. Mm-hmm. ok pour pour pour que bi. léegi mu nekk lan. policier bi jotu ko moom par contre nag malheureusement jotu ko après ñun ñoo ko mujjee jotal suñu bopp. Mm-hmm. bu ñu ko jotee mu commencé jéggalu. automatiquement ko lan nga ne ko. ñu expliqué ko ne génn naa prison xam nga ni ko génn naa si rëbës bi donc te. yéen dafa am am yéen waxoon naa ne ko ne waxoon naa dinaa génn du ma fa yàgg xaw ma nag ñaata fan laa fay def wala six lu mu def ma ne ko bàyyi yàlla def na yàggu ma fa tey mais mhm. génn na wala mu ne la mu ne mu mhm. mu ngi jéggalu waaw borom acte yu mu def yëpp acte barbare yi yu mu def yëpp mu ngi jéggalu ba pare di jéggalu xaalis bi mu sàcc <laughs> non la la ko waxee waaw au téléphone au téléphone yi la nekkoon au téléphone nga jot mu ne moom mu ngi jéggalu moom xam na ne lu juumte la par exemple la maa ngi jéggalu. njuumte laa def njuumte la njuumte la. dóor yi ma la doon dóor. li ma la maltraité ma ko li nga doon def yëpp maa ngi doon ñaan jàppale si ngeen baal ma bañ maa dóor baal maa ngi ko doon ñaan est boobu ñaan bi ma leen di ñaan est-ce que baal ngeen mm-hmm. est-ce que yéen am moon ngeen xolu yéen mën de bañ a mm-hmm. ko ko waxee mu ne dëgg la dëgg la instant moom loo wax dëgg la. donc parce que mm-hmm. instant xam nga ni que génn naa instant maa nekk si position boo xamante ne. mën naa leen topp wala mën naa leen sonal de telle que yéen instant da ngeen di wàcc. imagine en tant que policier yow benn civil ñoo di la wàccee sa wàccee sa niveau yow nga taxaw si kanamam di jéggul mhm. et ci ki nga xam ne moom nga yaakaar ci mooy protéger sa bien. Mhm. Euh, moom mooy mujjee. léegi après nan mhm. ngeen mujjee. kii jàpp sàcc yi moo sàcc. kii jàpp sàcc yi moo sàcc. loolu la non kooku nekkatul koo xam ne daf ko doon protéger pour mm. ay bien mag yooyu mm. mais su ko sàcc doon sàcc tey jii man je me dis que sax est est du xaalis bi sax ñoo gën a tax ñu yóbbu parce que bëgguñu woon bëgguñu woon benn yoon parce que ku nekk ñaan la li wax ni lii c'est grave ku nekk ñaan la ku ñaan na pour que ñu bàyyi ma ku nekk ñaan na suñu wax koñ amul ku ñëw ñu président ay yi sama grand yi. pour lan pour nga pour nga teg ci suuf. waaw nga ñu ne nañ ñibbi la. pour que ñu bàyyi ko mm-hmm. waaw ba Waly Seck woote na. maa ngi ko si mm-hmm. sant. Mm-hmm. ñu bañ euh, suñu maire Yoff woote na ñu bañ. donc euh, man ne man ne est-ce que lii taxul ñoom ñuy gën a insister pour que ñu téye ma ñu ngi gën a toll ay charge mais loo yàgg yàgg da génn <laughs> parce que ñoom li ñu wax man li ma dégg li ñu wax maire bi ak lu ñu wax ñoom waali mooy que man dañoo nekk man dama yoroon ay cocktail molotov hmm. mooy li ñii rek terrorisme hmm. ko takkal ay eh, te nga yor ay cocktail molotov da ngay def lii da ngay def loolu la ñu ma bëggoon takkal parce que loolu la ñu wax ñi hmm. donc bi mu génn laa leen wax ne que loolu amul loolu bu amul bi xanaa juge bi du Mm-hmm. léegi gannaaw ba nga ko woowee mu baalu yow ndax def nga ay jéego dem ci chef am muy ca commissariat ba mm-hmm. Mm-hmm. dem naa ba ci chef bi ba ci commissariat non avant ça parce que ñoom dañoo neewoon dañuy ñëw baalu si suñu kër. ñoom policiers yi. waaw mais xam naa bi ñu toogee ba ci yàgg bi ñu toogee ba ci yàgg ñu xalaat ni que ñoom bu ñu ñëwee baalu si mën nañ leen fa foto wala mën nañ leen fa enregistré wala lu nekk mën na fa xew parce que ñoom li ñu wax après ils ont dit mën nañ leen fa dóor. Mm-hmm. parce que waa koñ mën na leen fa dóor donc c'est ce qu'ils ont dit. parce mm-hmm. qu'il paraît. Mm-hmm. donc euh, ñu bàyyi mu sedd comme léegi ñëwuñu man bu ñu ñëwoon amaana ma bàyyi mu sedd ñu fay ma sama xaalis ma dem ma toog. man sama xol dina sedd peut-être ma ne comme def na li ñuy def jéggul nañu ñu ba toog sa kanam nag di jéggalu. ma bàyyi mu sedd bàyyiwuñu léegi ma ne comme léegi dematuma léegi si procureur dematuma si procureur wala danga ko dem wax ji commissaire bi. parce que sama yaay newoon na naa leen baal parce que xaw na am xolu yërmande xam nga jigéen ñi rek yéen da ngeen xam mhm. yu topp naa ma non mu seet kii comme wax ma bàyyi mu seet dinaa ko wax ko wax bi moom jël ay mesures si mhm. commissariat mu jël ba pare dinaa ko dénoncer ma bàyyi mu sedd ma mhm. ne ma d'accord ma dem wax ko commissaire automatiquement du ma gis non dama dem ci commissariat bi secrétaire bi ndax am nga rendez-vous mu ne ko non ma rendez-vous mais li may wax ma wax ko fii ci commissaire mu gis ma tey moo gën ko mu ne mu ñëw donc ngi woon ci commissariat bi ñoom waali woowoon nañ ko mu xam ni que kii donc déjà ma ñëw toog moom mu ne ma déjà moom mu ngi soogee am si commissariat am ku ñu fi dugal mu génn en deux jours musul am d'habitude kuñ téye si manifestation da nga fay des ay 4 xam ne moom musul ma xam li ma xam sante ko yàlla ma sante ko yàlla ma bàyyi mu sedd moom moo ko cas mu ne ma léegi ka moom wax ni que yow joxoo sa xaalis ma ne ma jox leen sama xaalis ma tëdd si ma sama xaalis après man ma tëdd si prison bi wala yow ma may sonn ma am xaalis bu ma mayee xam nga mu ma d'accord mu ne mu yow noonu def ba bañ jox la mu laaj mu quoi noonu def bañ jox ma ne ko dañ maa dóor mu man maa ngi woon si terrain ma ne ko mais instant yooyu nekkoo fóon yow dem nga parce que am na benn instant oto bi panne na ngeen mu waaw ma ne ko instant yooyu mu mm-hmm. fekk ma fi ñu toog jël enveloppe compte xaalis bu mat mu jox ma jël mu ne ma lii mooy xaalis bi lii la woon ma ne ko mat na mu ne waaw ma ko mat na donc ma ñu waxtaan échanger joxante ay conseil ma ne ko euh, sa gars yi loolu mu ne ma dina da xam nga rek dina dañ leen di rajee d'habitude la plupart du temps dama leen di rajee parce que moom xaw na affaire xaw na ko jaaxal mu ngi jàpp bopp di yëngal ñu mm-hmm. def yooyu noonu xam nga mm-hmm. man après ce qui m'intéressait mooy ko wax naa sama soxla mm-hmm. jot naa sama xaalis maa ngi dem moom woowul sax ki nga xam ne agent bi non ma wax xam la ma wax nag euh, soxlawul preuve parce que civil bu am fitu ñëw taxaw si kanamu. homme de tenue di ko wax ni ko da nga maa saaj am na preuve. ñun ñëpp hmm. ñun yebewuñu leen noonu. ko defee loolu day am traçabilité. même mu ne ko mu ne ko dama ko wax mu ne ma amoo leen fitu ñoo taxaw sama kanam di ma wax da ngeen maa sàcc sàccuñ mhm, la. loolu ma wax. commissaire bi si mhm. boppam. ma xam ni mhm. mais après man tamit ma jëlal sama bopp sama initiative ubbi téléphone bi ne ko ko. wan ko transfert bi wan ko montant yi won ko tur bi. mu xool mu bind tur bi enregistré. léegi commissaire bi moom jël jël moom xaalisam moom. mu jox fay la waaw xaw ma na xaalisu commissariat. daal seen tenue yi leen def de telle parce que waa ji am na benn instant mu ngi wax ko mu nekk Sonko bi ngeen di manifester suñu yoon nekku si bi ngeen demee ah bu Macky Sall wàccee bu fi toogee tamit ñun suñu salaire duñ fi toog ba léegi suñu salaire suñ ko yokkul kenn duñu ko wàññi. loolu mu wax. si yàlla baax dinañ xaar régime bii di ñëw ñu xool ndax léegi si justice sera faite ou parce que déjà man fi ma bëgg a waxee mooy est que xaar régime bii di ñëw aussi parce que lii ñu la def nii tey firnde la firnde la euh, non seulement tey da nga yooxu parce que yooxu ba ñëpp dégg la ci la nga dénoncé. Mhm. xam nga euh, li ñuy wax naan li ñu dal ñi bëgguñu mu dalaat ñu. dañu mhm. koy commencer par ça. mooy lii ñu la def nga ñëw dénoncé ko. Mm-hmm. te waroo sax arrêté tey. Mm-hmm. da nga ko war a dénoncé parce que am na ci ñoo xam ne suba mën nañ ko mën nañu na ay moroomam yu bëri yu koy. dund man si jour kenn ku benn copain bu nekk pour laaj ko. mu ne moom am na kenn ku ñu ko def si beneen commissariat xaw ma gendarmerie. Mm-hmm. bu ñu ko def du fekk si moom 900000. 900000. waaw moom 900000 lañ jël si moom si manifestation. parce que kooku dafa bëggoon man ma dénoncé ko man ma boole ko wave pour que mu ñëw ñu toog ñu yóbbu yóbbu procédure bi. Mhm. fu sori. léegi si la ma expliqué am na keneen koo xam ne yéen a bokk kàkku mës naa bi jël si moom. Mhm. donc du si man kese ah. am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam na leen yàgg maanaam bii dafa moom il a le courage de venir mm-hmm. ak it bàyyi ñaan yi am ñoo xam ne dañuy def peut-être ñaan ñu bàyyi wala mm-hmm, ñu ne mm-hmm. ah non comme ay takku der lañ rek du mujj fenn parce que on a l'habitude de dire ça naan non alors que euh, yoon amul amul takku deer amul képp ku mënti doon ñun ñëpp dañu war a soumettre ci loi lool lool lépp def si kii mais mais hmm. quand même c'est c'est na waar bu fekkee ne euh, yow fi nga xam ne nii foofu nga yaakaaree kaaraange hmm. ñoo lay dóor fi nga yaakaaree ñu sécuriser say bien ñooy ñooy ñooy jël sax waaw ñu ngi koy mais c'est c'est c'est grave. c'est grave Sénégal fi fii la Sénégal parce que parce que jànguñu droit mais xel li ñu naan droit français la te tey tamit xel lum nangu. Mm. mais jàpp naa ne nit ki ak ci loo ko mënti teg loxo amoo droit di. dugg ci ay code euh, wave am wala yooyu noonu fu compte xaalisam. Mhm. ah ci li ma foog. loolu moo am déggoo moom. bi mu demee laaj xaalisu. jàmbu waaw ki nga teg loxo je ni loolu moom xam naa ne bu ñu amoon benn jour. ba pare est-ce que xam nga euh, fi mu yoree sa téléphone noonu. de jàmmalaay à. Euh, tribunal tribunal. foofu noonu la doon manipuler pour jéem a effacer. waaw yi mu def. li te man xam nga laa lay digal. Mhm. vérifier vérifier ton téléphone il faut encore vérifier. Mhm. bul xool ci Wave rek ak orangement Money il faut encore et encore vérifier. téléphone boo. parce que ku ko def saay-saay la. vérifier sa téléphone ci côté yëpp. dëgg la comprendre su ko jaree xaw ma mu ngi dégg xaw ma déggu ma. Mhm. bala mu lay njëkk ci mais su ko jaree yóbbul ci ku xam. téléphone téléphone mm-hmm. ak sa compte yi nga am yëpp euh, ci mm-hmm. euh, kii bi yëpp samay données privées la merci demal nga vérifier yëpp <laughs> samay données privées la génn nga tey ba ba yoole ko mm-hmm. demal lépp xoola demal jusqu'au bout ba pare pour libérer les sénégalais ci côté yi ci ñaawteef yii nii il faut nga dem jusqu'au bout na la jaral lépp na la jaral lépp waaw ah, parce que man je trouve pas que am nañ sax pour donner parce que dugg na dugg na sama galerie du xoolal moo tax ma ne la vérifié. loolu moom mën naa ko jël sama bopp du ñu samay galerie di xool di xool samay photo di naan kii kan la kii nu mu demee nii. <laughs> vérifier def nañ loolu yëpp ah def nañ lépp man de man man wax dëgg fa nekk yàlla man damaa jaaxle léegi Sénégal si fu mu toll nii. ndax ñëpp ci jaaxle ndax ndax bu fekkee ñun ñu war a xam ne ñoo ñu war a aar. Mhm. tey jii ñoom ñooy salfaañe suñu àq ak suñu yelleef tey ñooñu ñu war a aar comme ni ko maa xa di waxee léegi mhm. ku ñuy dóor ci mbedd mi ñoom ñoom sàcc bu ñu fekkee ñu koy dóor dañ ko war a récupérer yóbbu ko commissariat léegi ñoom ñoo lay jàpp avant ñu lay yóbbu commissariat ñoo lay jàpp dóor la ba gaañ la comme ku jàpp sàcc non seulement noonu ñu lay la ba gaañ la ñoom ci boppam ñoo lay sàcc loolu la commissaire bi wax nee na moom man may jàpp sàcc commissaire wala wax man may jàpp sàcc ñoom ñi sàcc loolu la commissaire bi wax ba mu ko waxee instant daal tout c'est compliqué dëkk bi nii la gars yi di doxalee dëkk bi force de l'ordre yi dañuy jaay ñi ñuy bof. commissaire bi moom jéemu la laaj ndax wala ñaan la ne la ndax mu noppi na yem fii wala nëpp nëppal wala daf la jox xaalis bi rek. moom ah, daf la ñëw rek delloo fay na ma xaalis comme amaloon nañ ma xaalis. te moom avoué ko xamul. fekkeewu ko moom xam na ni que donc li yëpp euh, mm. naa ni nëbb commissaire parce que ñoom li doon jéem a di jégalu ne dañu doon wax pour que bu ko commissaire bi yëg parce que bu ko mm. commissaire bi yëgee dañu am problème c'est ce qu'il disait parce que xam ne que peut-être commissaire bi nekk na koo xamante ku rigoureux la si mhm. commissariat mhm. donc dégg naa wax yooyu noonu yëpp. ah ñoom dañ doon jéem a baalu si. pour loolu pour que mu bañ a egg si pour que commissaire bañ ko yëg ma ne leen dama koy wax commissaire bi ñu ne non non buñ ko def mën nañ leen dàkk. Mhm. xam nga buñ leen dàkkee te commissaire bi nii ak na la ñun am njaboot affaire demee noonu. allahu am njaboot. ñoom dañu nekk quelque ñoom ay forces de l'ordre lañ yoo xam ne nii eh, dañu war a def foutre la bordel defu leen saf après nit yi ñoom ñoom ñoom amuñu sa kanam yaay bi ñu la met nag waaw boobu boobu mu gën a métti ñoom ñoom ñoo jur say non mais quand même demal jusqu'au bout grand demal jusqu'au bout xool sa ñu toll nii rek si ku la ku la ku la waxuma mbaam bu la wéqee da nga koy wéq mm-hmm. mais ku la bëgg a toroxal ko. waaw bu la jekk woon de moom rey la. c'est ça. dëgg moom loolu la. ana ana tey jii martyr yi. ana nit ñi faat seeni ay bakkan. li nga li nga wax ni point boobu noonu nga wax noonu genre sama samay followers sur Snap loolu lañ ma wax. ñoom ñoo ma topp ñoo ma demal bul bàyyi mu sedd boo bàyyee mu sedd sax ñun duñu ñu wax sur snap comme ni may def ay snap di publier di waxtaan loolu lañu wax ne boo bàyyee mu sedd yow ñun duñu tooñ parce que liñ def nii def nañ ko indi ba rey ko peut yow deewuloo si mais loolu moo leen rey dañ di maltraité ba dóor leen bañ dee exactement parce que dóor nañ ma ba dóor ma si jour wañ di ko dóor si genou nit mooy seen pistolet bi di ko jël di ko dóor si genou genou foo da ngay tëdd côté bu ne nga tëddee ko te déjà si karo ngay tëdd violon bi. si karo la ba pare. est bu ne nga tooy tëddee nu ne tëddee naa ko fa ndax genou buy metti. est mm-hmm. xam nga tey jii yow mënuloo jël lépp sax dem ci fi nga war a jaar yaakaaruma ko am fa dëgg. Mm-hmm. su boobaa sax buñ ko naree gaawal dina yéex. Mm-hmm. xam nga lan nga am. macha allah yàlla may na la tey jii nga toog fekkee mën a waxtaan. waxtaanal ak askanu Sénégal.